Seyda Makki daw seeti sama góor gi àgg ne ko maam tey ji moom bëgg naa rek ñu waxtaanee nag anamu politique gi ci réewum Sénégal ndax nag yéem na ma lool sama góor gi ne ma lu la ci yéem doom ma ne ko maam damaa seetlu ne daal ni waay politique yi di dundee politique gi ci réewum Sénégal day bu soppeekuwul moom mën naa indi réew mi ñàkk suqaliku mbaa rek musiba ko ci gis ku ne njëriñam lay jiital fàtte njëriñu réew mi boole nag lu sa moroom def rek nga ne baaxul yaakaar ne yow rek yaay ki mën lépp boo àndeeg nit ki sax di ko jàppale day boo ko wanee ginnaaw di ko xarab boole koog ay wax yu ñaaw te nag maam li ma gën a tiital mooy rek rek seen taxawaay ci mbas mi ndax nag waxtu wi waroon naa rek ñoom ñëpp ñu def ab dank ànd ak rek ki fal di ko jàppale waaye nag defuñu ko lu rek dogal bu mu jël ñu sànni ko xeer ndax doxalin yi dina jëmale réew kanam sama góor gi ne ma doom ku sa wujj di sëlam doo set mukk dëgg la nag kuy wujje ba sa néegu wujj di tàkk ci biir kër gi day nga war a mun a ci ñuy wut ndox di fay gi sa jamono ji moom ñoom ñëpp waroon rek man koo fàtte nag tuuti rek mbiru politique waaye nag loo gis lu ne rek ca ndorteel ga la mës di mel ca jamono la jaar ci ab Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ba ci rek Macky Sall tey jii andi jayante tàggoo jiwante bi moom mës di am ci langue politique gi ci réewum Sénégal nguur gu falu rek am nga sa maram biraan ci wax ju ñaaw ma ne ko maam waaye nag li ma jaaxal mooy naka nga mën a bokk ak nit parti ñu fal leen nga di ko yàq lu mel ne xemee boole ceeg di sàkku rek ki leen fal mu dàq ko sama góor gi ne ma ku munti def lu ni mel day na xam ne rek du yëfu gor te nag mag mu réew moom lu mu yor moomu ko bu waddee rek gone gu yorooy for jëriñoo ma ne ko maam ndax mag mu réew dina jiite sama góor gi ne ma bu jiitee musiba am te rëccu te dong lay jural rek ko fal la mag day yaru mën a yi yi di wax wax ju rafet waaye ay saaga ki wax ju bon moom dëkkul fa mu jëm fa mu jógee rek la cosaanoo ndem si yàlla Fattala Njaay moom woykat bi woyoon na ko bon nag na waay politique yëpp defaraat seeni kàddu ku jiite ñu yéene la jàmm xam ne rek gaal gi ñoo ko bokk bu suuxee ñëpp suux su ko defee rek jàmm na ñooy Sénégal jëm kanam